Thiès ci Zik FM di journalu faits divers yi. suba su ne huit heures et demi jotee altine ba àjjuma Thiès di xew-xewu jamono ci biir quartier yi. Thiès di ay faits divers yu ngeen di nettali seen bopp yéen ñi suñuy auditeurs. Thiès ak Ahmed dara de dem nga bay ma man a way naa laay yow de wetal nga ma man a way naa laay yow de dem nga bay ma man a way naa laay asalaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. simeer moo koy tey. waaw simeer nag. Hmm. xam na ni moom moo koy tey dafa bëgg ñu toroxal. <laughs> parce que day xam ñun ci lan lañ ne. xam ne ñu ngi ci benn ci benn ak alaay day bàyyi ba nga xool ne lay xool rek mu daal di lay paas <laughs> mu paas la bal bi balaa ngaa tourné bu dee yoroo ndig lu baax maa rëdd taay. vétéran te boo xam ne ay vétéran lañ ah. voilà jaay deful dimanche ba léegi. waaw jaay jaay li daal dama ko gëj a def temps defuma waaye xam naa ne daal bii di ñëw bi ci topp ndax bii di ñëw moom xam naa ne suba bu ma ngel bi jàppee tey ci guddi gi ak suba gi damay ragal sama yaram yi. yaa ngi def lu neex. Hmm. ngel ngelaw séeréer yooyu la ilaha illallah laa ji daaw ma ko tarre sax bu jot <laughs> waa dañuy wax te ne gaal gi waaw la ilaha moom mos na nekk sama kii nag man dama naan ngel ba huit heures huit heures du matin man mos na nekk sama guur nag li <laughs> nekk ndongo yi yëpp daaw daaw mu waaw ka daw c'est la très bonne musique waaw ak ndaga ndaga waaw ndaga ak ndaga taaxawaan nag ah. taaxawaan ngel ngel rek ba ba ba soliste te te te kii. gataar gi. <laughs> la la la gitaar gi da koy téye ci deux temps dóoree rek lay def dóoree. <laughs> dóoree dóoree dóoree. Ah, en tout cas daal ngelu waa Ndangaan Samb yooyu waa Marlo yooyu daal. <laughs> Ah, tey daal daa ngel daa am suñ koñ. tey su tey ngel dafa am suñu koñ. waaw buntu école 16. géej waay. waaw suba nag. bonheur incha allah mooy suñu ndaje mi. ngel gi ay vingt ah ngel bi veille la ko waaw pour veiller investiture bi. <laughs> kan de xoy yi dinañ jóg. ngel kay salte gi ñëw. waaw ah, waaw la wax lii alaaji ah tamit. <laughs> lu leer la waaw du jaaj yi day ñëw. yii alaaji. xaaral ma ñëwoo yaa paas. les gars génne lépp seetu yi génn. ñu tuur li ñu tuur li ñuy tuur guddi gi def lépp yëngal réew mi bu ñu xëyee 15 heures ñu def investiture. waaw ma ñëwoo sama mbokk law bay sama laaj. mën ta ñàkk. Mm-hmm. Mm. law euh, ba sa waaw. Këccël maa ngi lay nuyu bu baax. waaw alma leen waay <coughs> alma leen. lawbe Louga yi de bi ñu daan def tàkkusaanu lawbe yi. Mhm. naa Cheikh Sarr ak Omar Seck moom ak Cikito moom. barke non ñoom ñëpp dañ may xajal. barke man maa xewle. <laughs> non bàyyi li wax. maa xewle. Sidi Diop Titi. ngaa ko leen de caat. Cikito il est trop fort Omar Seck il est dañ may dañ ma xajal dama xewle. waaw loolu dina doy waa di. investiture bi dama cee investiture bi dama cee. ak liggéey bu subaa allah. Titi. Sidi Diop Ngaaka Blindé Thiat Seck suñu rakk ci waaw man daal man kooku moom Thiat daal yow ñett fas yéene honoré président Alaaji Malick Gakou yow ñettati ngi ni hmm. ma topp la ci investiture mooy pare ba wax rek ñetteel lii lan la nii waaye nee na lii daaw fi jël waaye dugg na di lii lan la nii yàlla déggal deux temps bi wala ñu ngi lan la wala sama am lu ñu xam xam ni ñu lan la seen fekk nag amul amul tey. déedéet ñoom ñoom ñoom amul. saa la ñuy def saa saa yi waaw kay yéen ñii amul amul aare. te waaw te saa yi sax ñoo ñoo koy créé seen bopp. moom dëgg amul saa yi. waaw bu la neexee kon ne waaw bu la neexee kon bu la neexee ñu jël saa yi. seen gàncax amul. ñoo bokk ah bokk maam bi. lu leer laa la. ginnaaw Égypte gi leen cosaan. dama ne la xoolal feccu kenn ak feccu séeréer ba mu fee. Mhm. du ñu fee mukk di di di sànni ci kanam. ñoo bokk maam ñoom dañuy wesaare saa yi lañ leen. Ah. xoolal li ma la wax. xaaral ma laaj Omar Sidibé fan la toll. la ilaha illallah. Omar Sidibé moom mooy bëggam tamaj. ah comme que moo dem ba fële kay. ba màkk tamaj fii moom yaakaar naa ne. <laughs> màkk ji ba tama. <laughs> tama ji ba màkk. dugal màkk <laughs> <laughs> tama Mamadi Seck Parcelles Assainies seeru ki de Seck famille Ndiaye Malick gi yëpp waaw ah, yal na yàlla ayofal suuf si kawam ndeysaan ngi préparé le neuf Janaar Ndiaye maa ngi koy nuyu di ko siyaar ak ajaratu Tullo ak Adja Ndaw waaw waaw waaw maa ngi si soxo général Modou Ndiaye waaw waaw ngoy nuyu non bay bëgg a dee Ah, waaw xoo yi de. barki maam Serap Fall. sal liggéey. na ñëpp ñëw. invité nañ kon kon ngel mi tay la. veille ngel gi kay ah, moom ngel mi tay la ci guddi gi alaaji. mooy mooy veille veille investiture bi la veille bi il faut alaaji. egg ngel doom. <laughs> foo toll ci àdduna da nga koy dégg. ngelum géej mën naa dem ba. Eh. daanaka tóoglu. te alaaji. <laughs> baafal <laughs> yi teg la. ah <laughs> te alaaji gis nga eh, nga ngel nii. waaw ngel bu 4 di ma matin jotee. waaw ñoom pap ñoom pap waaw ñëppay maase. ñoom Ibou Diouf ci lañ soog gaja dem nag. ñoom ñëppay maase. <laughs> ngel bu 4 heures du matin ñëpp maase. bu soo Njaay de sama sëriñ la waaye nee na ma ba ba waaye Italie de. Hmm. ñu ngi ci mbir mi de. ah waaw. wala kii naan ma. on réclame lan une investiture décentralisée. Ahmed Aïdara national ga. <laughs> dégg nga bàyyi ma toog loolu bàyyi Karim waxoon bàyyi Karim neewoon na la. waaw di nit la bokk. waaw ma ne ma woon fii Sénégal la nee na ma woon fii day tàmbalee waaye Sénégal laa bokk. def ko mm-hmm. Karim waxoon loolu. sëñ Mbacke Balaye waaw waaw ah, waaw maman Aïssa Niane maa koy siyaar di ko nuyu ak Adjaratou Mati koy nuyu baax a baax. Mm-hmm. sama yaay na fi siisee ab sa saar maa siyaar di la nuyu bu wér a wér wér non Ndeye Fallou Mbaye maa siyaar di la nuyu bu wér wér a wér <coughs> yàlla dolli jàmm ci réew mi rek alaaj mi yàlla dolli jàmm ci réew mi na fi yàlla def teranga amiin amiin amiin waaw président Malick Gakou ñu koy siyaar di ko muy vraiment gis nañu taxawaay bi démb moog Massamba Diop mooy parrain mooy parrain bi quoi waaw non man Massamba Diop suñu benn dëkkandoo la. ah ok ñu koppee ñoom it seen waa kër macha allah nekk ay nit ñoo xam ne ñu mën social daal. macha allah jàppale waa kër boobu yàgg na yàgg na yàgg seen taxawaay yàlla taxaw. yal na leen yàlla suturaal gis nañu soutien bi. Mm-hmm. waaw ñuy nag euh, suñu rakk yi ñoom El Hadj Diop. Omar Ndiaye Moustapha Aydara ñu fekk woon démb ndaje ma. ak Moustapha Chérif waaw ak Ngom. vraiment Adja na Mbaye Ousmane Sow ñoom Ibrahima Fall waa kon bi ñoom Mandaw ñëpp ñëpp ñëpp yal na yàlla dolli jàmm. amiin yaa rabbal aalamiin. Basiirou Ngom sa mag gi mag vraiment ñuy sama papa Fallou Ngom. na yàlla dolli jàmm. amiin yaa rabbal dolli sutura alaaji. yàlla def jàmm ci biir réew. amiin yaa rabbal sama yaay yàgg ñoom Anta Mbeng ñu ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp. Cerno Alsan Sall tam gis nañu alaaji ni mu taxawoon ak euh, kër gi. waaw waaw waaw waaw yal na ko yàlla fay na yàlla taxawu ñi nga xam ne nag euh, ñu ngi ñaanal kër gi jàmm yëpp. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw ñu jege ak ñu sore ñu nekk ci biir réew mi ñu nekk ci bitim réew yëpp. Mm-hmm. sant leen gërëm bu wér. waaw yal na leen yàlla aar taxawu leen moom it. amiin yaa rabbal aalamiin. bu baax suñu xarit bi xaaju Malick Wade. waaw waaw waaw waaw ndeysaan. Malick Wade moom kenn la ci ñun. waaw waaw waaw. alaaji euh, euh, sama goro nag sama goro. ki jur ki may. ki ngay denc waaw may denc. <laughs> waaw tey la anniversaire am. ah di ah, mel alaay dëkkoo ko nag alaay xaaral ma nuyu sama yaay gi nga xam ne mooy. maa ngi ko sekk di ko le neuf. doomu ndeyu ñëw a ñëw nag ci ki nga xam ni ah euh, euh, bu dul woon ak moom maar di taali ñoo ñu bëggal ci kaw gàttal waaw ko rek ah. waaw Fat Sow Fat Sow ak Adama Sow waaw Fat Sow ak Adama Sow vraiment seen anniversaire man Serif bi maa ngi leen di ñaanal sama barke maam ah. yàlla na leen yàlla taxaw xaar ah, yaram suturaal leen guddal seen fan moo jural sa simo sa jumeau bi ki muy waaw loolu laa wax dama ne dama ne bu dul woon ak moom walaay fajar waaw parce que fajar gii neex ma ngay neexi ca te comme que a jur jox ñu sow pour la arme ngeen di anniversaire ah. mu ngi lu toog ci rajo bi publiquement ah. ñaanal leen yàlla sànneex waay de ah waa ah. mu complexé barki Rasulaay dégg nga ñu ngi nekk di tudd ay chaque jour à la dërëm ñaanal guddi ah wallaay te yàlla xam ne nii nii ni ñu boole nii rek nii nii nii nii waaw nii nii rek nii nii nii rek de wallaay bëggante nii neex yàlla rek te te yow Sow. Eh. da ngaa jur jox ñu. wallaay ndeysaan. Ah. ka nga jur jox ñu it. nekkul ca kër ga nii rek. di di ñu xool di ñu ataayaal di dem ak dikk déedéet. Ah. waa dañoo séddoo lépp nag. ah bon day rax. déet déedéet njëkk te muy moom moom la ñuy séddoo. waaw waaw waaw kon léegi nag Sow bu la. Ah, euh, sama goro boobu. dèjà xam nga jur jox ñu. waaw alaaji lu ko neex neex neex na ma. neex waaw waaw. day tuwaat alaaji yow. waaw. yow lu yow yow yow man yow yow bokk yow man ak yow. waaw du génération kàcc kàcc. Eh. déedéet ak ak sànjiri. déedéet waaw ah, ñoom Ousmane Diagne. Eh. déedéet noonu lu neex neex na leen. non lu naqari waa ji neex na leen. Eh. <laughs> Ah, lu naqari waa ji. Ah, waaw neex na leen. waa ji ca kër gu weex ga. lu ko naqari rek. neex na leen na leen. waaw bu ko defee nag waaye lu waaye ko neex. waaw uh-huh. naqari na leen naqari na leen. voilà ah. voilà ñoom daal xool bu seddam daal bëgguñu ko. léegi nag te man nag Mansour. c'est le contraire. Ah. moom lu ko neex neex na. waaw ah. c'est ko na naqari na te comme que sow la li nga jur jox ko. Eh, eh, neex na ko neex na ma. Eh. voilà kon nag soo ay sa anniversaire. laay mën a jege sow jox la dara. déggoo Baye Fall. numéro ñaata la ñu tàbbal ci dara. guddal fan rek. leen di leen ci li neex di dund lu neex. lu neex loolu di jur lu neex. waaw neexaa googu day neexee di neex. waaw di neex di neex ci ñi. non waaw di neex <laughs> ñi mu neex ba neex yàlla. waaw waaw loolu neex ci ñi mu neex ba neex yàlla. nee na léeg-léeg ngay dund lu neex. billaay wax nga dëgg. nee na léeg-léeg ngay lu neex ci biir lu neex. waaw lu neex li di neex ba jur lu neex. waaw waaye lu neex loolu di neex ki ki ngay neexool waaye du neex yàlla mooy lii. <laughs> wax nga dëgg de. waaw nee na waaye du neex yàlla. waaw dëgg la ay. day am. <laughs> alaaji fan la. ay. alaaj bàyyi tëgg gi alaaj alaaj bàyyi yàq suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñu jotaay bi alaaj yëpp ñun dañuy liggéey. <laughs> alaaj mbaa xam nga ni corde bi mënoo ko moom. man la wala simeer. deux temps la simeer la. ay ah, sib nag yow dagg bul yàq tes gi. ah kon de ànd ak way ay. yow de alaaji foo ne xanaa gisoo ndaw si mooy kër mooy kër lay cosaan a neex lool torop xale bi 2003 ba léegi ñu lay awoo ah yi duñu yàqu di bu la yaxee jóg de <laughs> wallaay day eh, bëtri de. ki ñoom ñaar ñoo bokk ndeg baay. ah waaw. day eh, am cas. day dégg cas gi. waaw cas gi waaw bat ba bat bi. ay. dégg nga bëtri. dégg nga bëtri maa koy cas. <laughs> te batterie bi amul kii de grosse caisse bi caisse claire la lépp. ay plateau rek lépp caisse claire la. tas gi rek ngay li bëri audio yónnee ko ko ma ma ma xëy ji. reprise bi. dëgg la ah alors. Ah, <laughs> da rasulullah eh jolof ci kenn leen may de. Ah, ah jolof ci kenn barki yu nit bi dèjà. ay ah. ay ay simer boo fi nekk loolu lii lan ah. ay kon madame Diop. ay simer. waaw kii mooy Usu Njool. ah ay waa simeer teggil lii. bu nit ñi kontaan bu sa xol bonee ci mer ngay dëkk. kenn du la xool doo say bëñ si gima day xeeñ. ndax si béeku doo reetaan. reprise boobu. déet déet déet déet. doo reetaan si simeer. dé doo reetaan. simeer aja aja. waaw El Hadj El Hadj déedéet bu mu jógee. El Hadj bàyyi ma nag jot mi nag El Hadj bàyyi ma nag jot mi nag. jolof ci kenn leen may lii de. maa la ko wax. jëlal bi ala jëlal de. ay man man soor Diop nii. da ngay fexe da ngay fexe. tey tey tey bu fekkee ne rek nga teewee bii moo gën a jàpp suñu gën a jàpp. waaw mais ci la mais reprise bi la. bii moom mën na ko jàppoon deux heures de temps. waaw yóbbu nañu de yóbbu nañu de. waaw waaw waaw. am na tas jiw ba de. ah. la ñoom ñooy ñoom ñooy. waa Simeer baax na Simeer waa Simeer baax na baax na waa Simeer baax na. Simeer mii. Simeer neex na rek gars yi mu bëgg ñoo ne moom moom rajo. Eh, Fallou Mbengue ziar naa la bu baax. <laughs> sama soppe bi jërëjëf <laughs> ko jàpp deux de temps. nuyu naa Xaadim Fall. laa <laughs> ilaaha illallaah. Njaaytu Ndaw depuis Géejawaay Daaru Xaan. joyeux anniversaire non Xaadim Njaay maa ngi lay siyaar El Hadj numéro deux. Gakou 2 maa ngi leen siyaar grand papa ah! Amadou Gueye maa ngi leen siyaar Awa barakatu jarul nga ma yónnee message de ñëwal rek yow ci ngel li ñëwal rek ci ngel mu jeex tàkk waaye allah yi nga ni tey tey tey lii chemin teg fii moom ngeen bëgg a fanaanoo ah, géej waay waaw Assane Baye Fall maa la ko ah, wax maire waaw waaw takku jóg waaw As Fadia waaw Omar Touré Anta Gueye na nga dikk de fii moom amul benn excuse yëgle gaa nekk nii ci rajo beeg télé bi Dior Ndiongo Ndoye. alaaji sa goro bi nee na kontaan na. ah waay sama goro bi kat. nee ñaan gi mos yàlla na kontaan nangu de. Euh, kii moom permis de conduire carte d'identité nationale waaye Dior yow yónnee nga ma ko démb Basirou Dioum képp koo xam ne gis na ko daal da woote ci 77 631 93 17. voilà euh, Daba mbay maa ngi koy siyaar doomu ndoye Aïda Mbodj foofu ca Géejawaay waaw kay ak. ajaratu njéeme baar voilà voilà am na nit ñoo di leen siyaar bu wér a wér a wér waaye non hmm? alaaji nag alaaji nag leen yow benn problème rek nga am alaaji si tànk daa gaaw <laughs> dañu di ay ceddo nag ab sa nuyu naa la sama rakk ji ñu dañu di ay ceddo xam nga nag fi ne nii coow li coow li sagu beeg tiitaru beeg yooyu yëpp ajow ko oh. duñu ay extraterrestre fii dañu juddoo Sénégal màgge fii dañu am suñuy réalité ñii ay ceddo lañu ñii ay shérif lañu waaw ñii ay bawol bawol lañu waaw yow non xooli kii naan entrée war lii di gratuit eh waaye xoolal sama doom ji madame nee na nee na day nee na wuy papa mu ngi fecc ah waaw baax na de bi def ñoo waxoon ngel kay entrée mustasar lay <laughs> jóob je t'aime. alaaji dama dajale gi dajale eh, gaal gi kay huit laa daan génne huit heures. mais nag alaaji gaal gi fi bu bu bu xar waaw dañ daan ngel ba fajar samedi ci guddi ba fajar ci huit kon noonu nga ko bëggee. diggu li ma la man bu Youssou wootee ngel wootee ca ngel laay def. ajaratu Maguette Ndiaye maa ngi lay siyaar di la nuyu bu wér a wér a waaw waaw Maguette Ndiaye mooy suñu présidente commission organisation. Maguette meen. waaw moom Pape Gueye. taalibe Cheikh bi ah, waaw waaw. ak a baax. xoolal li muy organiser ci stade bi ci xadara bi rek. ndeysaan. organisation fulla ak fayda kay jox ko. ba sama rakk ji Assou ak euh, ñoom grand abu xol ñu leen di siyaar di leen nuyu bu wér. ab sa invité nañu la ci ngel bi de. waaw ah, waaw ab sa pharmacie nationale d'approvisionnement yaak Mado yëpp. Ah, waaw waaw invité leen de. ah Cheikh. maman Abi Sagna invité nañu la. alaaji de hmm? damaa dégg ne démb benn huissier dafay dikk ci kër gi huissier daal dégg naa dikk na ci kër gi waaw dégg naa ko pour def inventaire la xaw waaw hmm. inventaire gi daal hmm, dégg naa ko de naa ne nag moom boo demee moom <laughs> alaaji ah inventaire gi mujj na <laughs> <laughs> aywa ah, ah. <laughs> na bañ a dem ñibbi rek. <laughs> waaw. boo ma day inventaire matériel kër gi yow euh, matériel kër gi daa daa toll nee de. <laughs> fii de li fi am solo mooy ñii. xanaa nit ñi. borom bopp di wax. waaw nit ñi daal xam naa ni daal. yow xanaa xamoo ñàkk ñun ñun ñàkk am ay wax kat yu mel ni ñun. Mm. ñooñu tee ku nekk ubbi sa rajo bopp. barkeel xuraanu karim li fi lim li fi lim daa am ko. wallaay dëgg la. <coughs> waaye kaay kaay la inventé jël. xoolal bu ñu jëlee. ci suba ga. Mm. Mm. xanaa ñu dindi fréquence bi. ba ngeen rajo la ñuy ubbi rek ma teg ko sama appartement. Ah, dañuy doxal waaye xamal naa ah. leen de. fi ñu fi ñu jëmee des médias yi non déggal yow suñu doom ji ab sa baaw ndaw naan ma xanaa salaire yi daa dugg kontaan ngeen. salaire salaire kay amul kenn ku ko jot ci kër na fi sotu Sow ak Moussa Sow daa réer. Mm. Jawle. en département bu Fatick. boobu léegi am na 15 jours adresse am na Géejawaay la wax naan Nimzaat ko gis na nga woote ci 77. 655 30 53. waaw kay jëf Faye Tullo. Adja Ndeye Amy Diouf waaw kay. Mamadou Salif Diallo ak Moussa ah. Diouf dañoo réerle seen i carte waay di carte grise ak permis de conduire. Oh. koo ko gis woote ci 77. 655 19 20. monsieur Diallo. <coughs> kor Aïda Wangara Diallo depuis CCBM waaw. waaw suñu xarit Wangara. Fara Diaw ma Diaw xoor Aline Diaw maa lay nuyu. ak baax. Mm. maa jàmm jaw jaw ngi lay fay sama mag ji jaw. ndeysaan. Hmm, hmm. waaw wallahi wallahi loolu am. waaw wallahi. wallahi. wallahi. wallahi ku baax la. waaw. waaw. te njëriñ la tax. ndax man. waaw. Mhm. suba ak ngoon guddi. Euh, ak baax. yàlla yàlla dolli ñoo xam ne alaaj dañoo xam lu baax. dañu maa tuddee làmb nga xoox. waaw. yëguma tinuma rek. jaw ak xaadim fay. ni cëpp sama kër. Mhm. fekk sama doom baay doon tudd kër Moussa. Mhm. ma daw dem ci tudd ba. waññeeku sama oto ci yoon bi. mu ni tëj ci yoon ba. fekk boobu mi quitté sama kër quatre jot na. ma mhm. bëgg a daw dem taxañ ko ñëwaat oto bi paan fat fat timis jot. Mhm. làmb jot jaw kenn yëgul ni man absenté naa. Ah jiw jiite délégation bi ànd ak samay soxna ñu dem ci stade ba. jëw wax fa wax yoo xamante ni bii. ma fa nekkoon du ma ko wax. wallaahi ndeysaan te yëguma sax nag loolu yëguma woon sax ni. Mm-hmm. yëg naa jaw jaw ñëw na ndax làmb ji sama xol sedd. Alioune Diaw puso la. kii kii yal na ko yàlla sàmm. puso la doo gis mu Sarr la nag waalo waalo. Ah, loo mënul ku la ko defal amoo payam. bokk suñu waalo de. loo mënul ku la ko defal amoo payam. nit ku am fulla la nit ku am fit la. Ah, am fay nit ku am jom la. bëgg lu rafet nag. du waxantu. bu jàppee du bàyyi. du waxantu bëgg lu rafet ci wax. waaw bëgg lu rafet ci jëf. Mm-hmm. du waxantu waaw déedéet. moom. bu jàppee du naan je suis je ne suis ni communiste ni socialiste ni libéral. Mm. suis opportuniste. ah. incha allah benn tubaab moom moo ko mhm. Mhm. moom yooyu moom nekkatu. Hmm. daal naa ne daal ba mu wonee ne bërëb nangam laa ne ba léegi. Hmm. ñooñu ba mu leen jàppee ba léegi ba wu waaw wallaay ndeysaan na yàlla dolli jàmm ci réew mi amiin yaa rabbal alamin amiin deret ji la waaw Aziz Alen Ndiaye ñu ngi lay nuyu yaag Baye Ndiaye di siyaar mm-hmm. bu baax a a baax Jolof ci kenn leen may émission bi de maa la wax jërëjëf Abou Sine liman lam ñu ko nuyu yow mm-hmm. euh, Seex sama alaaji waaw sama jabaat mami su tey bi mm-hmm. waaw ca alaaji mami astu xuma rek laa doon nuyu sama jabaat bu baax boobu nga xam ne rek rek koloñ rek koloñ bu bu bu bu Cheikh la ma may Baye Cheikh nag man sama xarit moom mooy la cole bëgg ma xam ni xale bëgg nga ma rek. jox ma la cole mu xam naa ko jox ma la cole waaw. moo tax moo tax gë gët yu neex ngay xeeñ. tuur fa kàlla. waaw laay ndeysaan waaye nag bu mu nekk la cole bu jógee fële de. loolu neex tëmb nga day dem. lay jaay. alhamdulilah nga koy tuuroo rek jëfut. <laughs> kay di wax lu baax. léegi alaaj waaw. tës bi mbirum sëy la. Mm-hmm. sëy mel mm-hmm. jëkkër ak jabar. Mm-hmm. waaye tës wi. maanaam daa bëri ay tës. ci biir tës ki moom xam naa ne dama koy mujj yóbbul imaam Abdou Aziz Touré ba ne fii ci un imam jeune. jàngal mara. ndeysaan ndeysaan. koy siyaar alaaji daf lay siyaare bu baax. ndeysaan Seydi Abdou Aziz waaw Touré. Touré ñu ngi lay siyaar bu baax a baax imam. yaa imam journak. bëgg ñu ndeysaan ndeysaan ndeysaan léegi ndaw si Cheikh Sarr hmm. nee na bu jëkkër ja takkee ñaareel hmm. naa alaaji dina nekk fii naan aaway dañoo fiir waaye hmm. alaaji bu ma teel a mbéj de may ma rek ma waaw waaw waaw lu ma yëgi ca ndaat saay ndaat saay dëgg la am tëgg day am daaneel voilà boo boo boo boo yëkkati geneen galañ bu may feelu soog a feelu voilà waaye instant bi nekkuma ci rëm tëm tëm rëm tëm bi te maa ngi ca ceebu jën waaw waaw dégg dégg dégg la léegi. Mhm. Euh, nee na bi jëkkër ji takkee ñaareel ak léegi. Mhm. moom ca la jàmmam jeex. oh. jëkkër ji dundalatul fayatul luyaas ngir ay doomam te am na ñetti bant. Ah. doomu ñaareel ba daal. te mhm. jëkkër ji juru leen doomu jiit lee. daal maanaam la yëkkati ni coupe du monde. ñaan na baat ba sonn. non ma doomu jiit aw ba. non ñaareel ba. ah indaale ay ah ñaar daañu indaale ay doom. daa ay doom waaye doomu yi ñaareel ba. Mousse. mu jël teg ci kaw doomi boppam. doomi bopp yi kay defal la du leen dara. du liyaas du dara ndaw si nag da doon jaay gën daa mujj dem ba toqi ak ay jooyam. Uh-huh. waaye yemu ca uh-huh. parce que nee na ñaan na waa baat ba sonn waa ji bañ. tey rek te waa ji léeg-léeg day jékki ñëw. ah uh-huh. waaye day ñëw de. njos njokket. déedéet nee na ko kay lu tax doo ko dàq mu ne bu ma ko mënoon kay def ko. dama ko mënulul dara. waaw mënulu ko dara xamul tax mënulu ko dara. Eh. am lu muy jomb. waaw moom jabar yi xanaa. waaw jabar ji daa baax. te waa xam naa waxtu waxtu xool tàcc mm-hmm. xam naa waxtu mi waxtu yu muy ñëw mooy waxtu yu mu amul fee jàmm. ci la ñëw njoos fii njokket dellu. déedéet fii ñemewu fee njoos. ndaw si ni mu waxee nii. Eh. non non fii kay gaw ma ni moom xanaa salaamaaleykum maaleykum salaam. jomb na ko. ah ah ci ah, li ma yaakaar. ah ci li nga yaakaar. non ci li ma yaakaar laa diggante ñaar moom ñu bëggante. Ah, waaw waaw mais mais non si li mu fi wax. gëmu ne waa bu ñëwee alaaji dana njoos. kay. kay. alaaji bay ma. non non non léegi du njoosu du njoosu wut eh. ñaawal la. <laughs> non non non non. lan mooy njoosu ñaawal. moom. ko ma dégg. moytu ma googu ñàkk fayda. non non non defal ndànk alaaji góor gi bu ñàkkee fayda ndaw si war a am fayda. ah eh nag alaaji. am na yoo arène gis nga jigéen ñi. alaaji mhm. jigéen ñi léeg-léeg nag ngeen baal ma demee léeg-léeg ñu dund injustice aussi. Eh. imaginez yow góor di la def loolu. Mhm. buum bi dogagul. Mhm. kon diine jàng fa ba tey parce que sëy baa nga fa. sëy baa nga fa ñun sëñu ko ay suba. fa laa doon ñëw. waaw. waaye ñu ñëw. ne daa bëgg a njoos. nga ne ko yow ce que wér nga tere ko sa bopp. ñu ne diine dal na sa kaw. ah. Mm. mais moom la mu njëkk a def fële diine daan na ci kaw wala daanul ci kaw. yàgg na moom ah, ah, ah, bu dekkee woon léegi paralysé la. ñu naan góor mais weng na góor gu jàng da ngay paralysé. moom góor yi duñ paralysé mais xoolal <laughs> ñëppay raam taxawaay bi suñ moo alaaj ñi am ñaar jëm kaw simeer. yàlla daa xamoon Sénégal moom yàlla daa xamoon Sénégal moom gisoo koo xam ne day paralysé. comme ni ko ah. fii. Ah, Sénégal Ndiaye duñ paralysé. dañuy lan bu ñu amoon paralysé tani ma xam nga amul puus puus. dañuy tëdd kulal may la. biir la ñuy waxee biir. tànk xoolal. mais nag am nga paralysé mooy sa benn tànk bi c'est ça. def nii ba ñëpp xàmmee ne. gos beeg gos mooy am na buy soox am na cër bu xaw a bañ ci yow. gos beeg gos. Sénégal jaay gi. waaw góor ñi fi yeewoo. waaw góor ñi fi yeewoo. yeewul xeer wala ñett wala ñeent. <laughs> yeewul xeer yeewul xeer. waxu xam nga jéng nii lañ dafa laaj. dañu leen di doxee benn tànk nee na nii ngay jéngee. waaw waaw te dëgg ngay def. <laughs> Eh. doxee dar mais nag alaaji. dar gu ngay doxee. alaaji got mi la bind. tolloole dara non alaaji yàlla mi la bind. Uh-huh. may ma bind sa xol. waaw may ndaw si. alaaji. waaw moo xam ni yenn saa yi sa xol bi. ku xees kay naatal. waaw non defal yàlla nattu la nga am ku xees ak ku ñuul. ku ñuul ko bi ko gisoon bëgg ko. waaw <laughs> moo tax yàlla ni. am na ñu ñuul ñoo xam ne wala tamilu kullal mayl la. waaw d'accord na. débat bi dafa kaw. jéng gi mu mënut a ñàkk. de xam naa ne ay nit ngeen. waaw defal naa bu leen jéng nag jéng gu fës. ah waaw baax na. waay waay yàlla. fii jéng gee fës ba tëdd. alaaji nag alaaji ah, ah. alaaji Mansour. yàlla mi tere jeng njëkk a jéng. ah wax ci rasulullaah danga nga yaakaar moom la moom la gëm. te ko te ko mujjee ñëw. jéngam gi daa fës trop. ndeysaan léegi alaaji sañ la ndeysaan. alaaji <laughs> léegi. léegi ndaw si. Eh. ndaw si daal jàpp na ne ba ñaareel ba duggee ci biir kër jëkkëram jë <laughs> la gëju dund jàmm. Oh. waaye nag man li ma ci jaaxal rek mooy li fa waaj bi di ñëw te waa ji buñ ne dafay ñëw yenn saay ci biir kër gi. Mhm. xel yëpp dem ci njoos. ah njoos moom mënut a ñàkk. Mhm. Mhm. ñu déglu ndaw si wala. <laughs> ndaw si bu ne la waa ji njoosul. dinañ ko dégg non non non gëmu ne mi ngi. waa ji bu ñuy dina naan lool non non non non. njoos. mënu faa naan lawal mënu faa naan deuxième dina naan lawal de ci àddina loolu kii mën naa ko kitaab de de boo ko kitaaboo la ko de arrêt bu bëgg def fii néew <laughs> barki xaadimu ba nga kitaabu ko arrêt bu bëggal alaaji doole daf fay néew tegal sa loxo ci kaamil waat maa ngi indil xaadimu ay eh, waat boo ko waatee waat fi kaamil di léegi moom eh, estimaire <laughs> dox ma taw barki allah moom moom borom kër depuis mu takk ñaareeram nanguwul fay lu yaas te ñaareeram boobu bu ñu ko doon takk kër gi ñu nekkoon moo ko yore woon moom moom si boppam moo yore woon ko kër gi xaasu waa ji koy encaissé dem di koy foowe doxaanee ko ba mu neex ko takk ñaareeram lu ma si gën a métti mooy conséquence bi yëpp jàpp ko jàppul jabaram man la jàpp ak samay doom ndax lu ma am ñaareeram la koy dem jox maa ak samay doom ñu ngi foofu di sonn. est fi fiir. man ba wóor na si Babacar billaahi walaay taalaay sama luyaas bu ko nangu woon a fay sax kenn du ñu dégg ndax man maa ngi jaay jën laay jaay instant yi damaa dem ba daanu complètement mënatuma dem sax marché central lu ci jën ñii dem marché central ñoo may jox ñii dem ba ñëw de si ñoom laay dem ñu jox ma ma jaay lu ma am ma jël mënatuma sax dem central wóor na yàlla ndax daanu d'accord yow yow ak sa jëkkër seen problème fan la commencé depuis mu am ñaareer depuis mu am ñaareer lu mu war a def ci biir këram du ko def. lan la lan la lan la war a def te def. fay lu yaas yore ay doomam yore tam ñaata doom ngeen am. ñetti doomi góor lañu am ñetti doomi góor la am. Euh, fi ngeen nekk nii moom moo ko jëloon. fi ñu nekk nii jëlu ko parce que fi ñu nekk nii kër bi ñu njëkkoon a nekk balaa mu doon am ñaareel toog nañu foofu quinze mois kayit yi mi ngi fii si ma la jox nii. boo ko si xoolee di nga ko si gis 15 mois de loyer toog nañ ko nanguwul fay huissier ñëw génn ma. boobu yéen ñaar yéen a ngi doon nekk tous jour boobu takkagul woon woon de mais mi ngi ko doon doxaan mi ngi ko doon doxaan di ànd ak kooku toog quinze mois nanguwul fay luyaas borom kër googu génn ma huissier moo ñëw génn sama bagage si biti ma dem sunu kër nangu maa yore ma ak samay doom ndax nit ki boo ko nee kaay toog mais. balaa ñuy ñëw seen kër yow sa jëkkër d'abord yow sa jëkkër maanaam man da ma waxul problème ban ngeen am ba léegi parce que xëy xëy na rek takk ñaareel mais avant boobu am na leneen lu war a loolu xanaa. dara dara de ñaareelam bi rek moo indi li yëpp. bi muy waaj takk ñaareel wax na la waxuma wax ko de même koñ bi ma dëkk foofu la nekk di doxaan di def lu ko neex ñëpp gis nañ ko teg seen bët ñëpp ko gis ñëpp ko gis lu ko neex. man sa loolu yëpp waxuma ko ndax moom moom boppam bu ko neexee sama mu am téeméeri jabar mais nag lu yaas moom mun ma koo koo fayal demee danaa ba sonn trois ans ñetti at jigéen di demee di lu yaas école xale yi lu nekk man maa koy def. léegi waa ji dafay raar ba mu neex ko rek mu ñëwaat. boo ko waxee ay waxu nii day dem yoonam lu yaas moom boo ko rek day dem yoonam. raaroon na fi léegi fi mu nekk nii barki démb ñëw na fanaan foofu démb ñëw na fanaan foofu. comme que fu mu nekk nii day dem toog ma man ma dem DMR de fay léegi nag fu mu nekk nii fayu parce que aw ma lu ma fayee 4 fu mu nekk nii maa ngi yore 4 mois de arrière 4 mois de arrière lu maa ngi ko yore da nga koo ñaan naa ko baat ba sonn mu bañ comme mënu ma yore na ma bàyyi ma dem seetiwaat kenn koo xam ne parce que yow booy toog naan naan jigéen DMR del DMR del fay sa lu yaas loolu mooy lan. ma dem mais dafay nga jaay sa bopp ah. dem fay moom loolu la bëgg quoi. Ah, loolu la wax di. demee den demee sa bopp demee demee danaa sax de demee danaa de ñetti at ñetti at maa ngi demee de léegi nag mënatuma daanu naa yoratuma dërëm lu ma jaay amatuma. léegi yow finalement yow léegi lan nga bëgg mu may la sa baat wala mu te ay doomam wala yow muy fay location wala yow lan nga bëgg yow. lu ma bëgg mooy location mu di ko fay école xale yi mu di ko fay jël ay doomam daf leen en charge comme lu mu leen yore woon mu njëkk ba ndax kee mu ne yo mu yore nere doom yële mu yore ne juru leen ñaareelam bee benn doom rek la am moom benn doom jigéen la am moom kese yeneen doom yi ñu yore juru leen. moo leen yore. ah moo leen yore kay ndax kooku moo leen yore. am naa ak yow am naa yow ñetti doom yu góor. am naa ak man ñetti doom yu góor nanguwul fay sama luyaas nanguwul ma ne dara. loolu moo ma jaaxal di. léegi fu ne dem naa fa nag. chef de quartier dem naa maison de la justice dem naa ay mbokkam dem naa fu ma xam nag dem naa su ma ñëwee fii fekk rek dama sës fu nekk dem naa fa amul fu ma demul maa sës kii central dama daan dem si benn paa mu di may jox jën may jaay su ma ñëwee jaay ba pare. weesu ko paa bi gaañu na boole wóoral mag sax kii mimi mu dima jox jën may jaay su ma ñëwee jaay fay ko weesu ko paa bi léegi gaañu na moo ma daan gaaraan ci foofu dimbali ma waaw mu lay jën dugg si biir marché bi fu ne mu utal jën jox ma dem jaay paa bi léegi na léegi nag amatuma kenn yoo ko ma gaaraan ci amatuma kenn ku ma taxaw sonn naa loolu moo indi fii. te bu doon yow ak yow dong di nga mën a dem ak sa bopp mais xale yi ñoo tax. Ah, waaw. kuy sonn kay kuy sonn kay say dooma tax ngay sonn kuy sonn dooma tax nga sonn kuy sonn doom moo tax nga sonn man dama sonn. léegi moom boo ko woowee nii lan la lay wax moom. chaque jour mu ñëw sama kër. amul woo chaque jour mu ñëw yaa ngi koy ñaan baat te bu ñëwee da koy bàyyi mu fanaan. lu ma ko mënal. lan laa ko mënal man. ah muy moom li mu li nga xamante ne loolu la war a def loolu la war loolu la warloo yow defu ko te bu ñëwee nga bàyyi ko mu fanaan. ma ne bu ñëwee nga ne ko ci biti. ah way yow génn si biti kay loolu kay loolu noonu bu fekkonte ne su ma ko ko waxee mu def ko du ma yegg si fii bu fekkonte ne loolu kese kase kese la du fi yegg si. sonn si wax sonn. sonn malgré bañoo ko mais lu mu war a def la deful. loolu mu ngi noonu loolu la deful defu ko wax naa ba sonn ay mbokkam faale wuñ ma mën na ba nag ay wax la lu si gën a garaaw mooy. foo dem wax day dem ne kii lu muy wax du dëgg fu ma dem wax dafay ne kii du dëgg dóor na ma fii ba ma xëm. yaa ngi nii. mooy certificat médical boobu dóor na ma ba ma xëm. dóor ma ba ma xam laa jàppoon nañ ko bi la dóor sama gém. mooy tëj bi ñu ko tëjoon noonu. Hmm. ay mbokkam na ma polisu Grand bii moo ñu jaaxal mais bu yegg 100 mètres ñu koy bàyyi du fa fanaan te. lu ñu wax noonu la amee peut-être ñoom seen bopp ñoo am xaalis man mi menace man awma xaalis moo tax waaw dool la di doole lañ ma jaay foofu doole. léegi yow sa kàddu lan nga bëgg yow. ku ma jàppale ngir yàlla yonent bi. si si lan mu fay jël charge. ay doomam ay fay. location ndax foo dëkk location moom sa forcé la kenn du la ko may. moomuma kër moomul kër kër jàmbur boo fu dekkee da ngay fay su mënee fay luyaas xayrul su mënul fay luyaas mu may ma sama baat doom yi ñoo ko bokk bu ko neexee na jël bu ko neexee na bëccëg leen ak man lu mu def rek baax na man moom fay luyaas rek baa mu dem yoonam may ma sama baat. loolu mooy sa condition na fay location wala bu ñëwatee bu mu fa fanaan. amul sax ñëw. bu mënul fayul yaas dama maye rek baat man. yow ma waaw waaw mu débrouillé sama bopp parce que fu mu nekk nii sonn naa xoolal damay jaay ba wàcc du ma ñemee sa ñibbi du ma ñimmee ñibbi ndax xam nga dëkk ak boroom kër nga yoreel ko dafa metti dëkk boroom kër ba pare nga yoreel ko dafa metti damay jaay wàcc du ma ñimmee ñibbi hmm. dafa metti su ma ñëwee fii sës naa fu nekk dem naa fa nag loo xalaat loo xalaat façon bu ne def naa ko foo dem foo dem si ay mbokkam wax mu ne li kii di wax di dugg day fen nangam nangam dugg na fi génn na fi ñoom ñi koy faral lu muy def xamuñu ko sërëm yi muy jël sama kaw ñu may saaga di lu nekk ñooñu ku si nekk yaa ngi yor sa jëkkër def lii muy def nii ah ñoom duñ ko nangu <sighs> seen mag lu muy def lu muy def moom ñoom man ma toog loolu ma koy muñ kenn du leen ko def seen jëkkër yi duñ leen ko def xalaatuñ ko sax. xanaa yéen yéen a benn koñ. maa sama jëkkër. ak ak ak ak ay sërëm ak ay sërëm bokkuñu sax koñ. bokkuñu ko sax koñ soree nañu mais moo leen di wax bu ñu amee histoire comme histoire bi nii moo leen di woo wax leen diw neen di ne ma def li ne ma ñu ñëw ci ma damay. ñoom ñu fekk si sa kër di la saaga. ba sama kër. ba sama kër ay rakam yu góor wër. yow boo demee police tamit du mujj fenn. si mooy li dem naa police jàpp nañ ko yóbbu nañ ko arrêté nañ ko police lu mu si war a def def na ko yëpp mais man li tax moom mu dem ba fële ah. avant jour bi ñu ko waroon àtte ñu bàyyi ko. ñu bàyyi ko loolu moom ma jaaxal. parce que ñoom dañuy nekk sama kaw di di ma wax lu nekk baa doole laa aw ma dara nangam nangam dugg na fii ah eh, ay ay ñoo may wax loolu de. sœur bi ñoo may wax loolu ñoo may xas may wax lu nekk. yow léegi say mbokk yow ah, dans tout ça say mbokk bi nga leen waxee problème bi lan lañ ci wax. samay mbokk xam nañu lépp dara ump leen mais jamono léegi si mooy boo néewee doole yore ay doom kenn du la xejal boo xasee njaboot ah, kenn du la mën a yore ak say doom kenn du la mën a supporter waaw nga dem sa yaay ak sa pap mënoo fa toog doo mën a toog feneen keneen du la fat bàyyi jiit si boppam dafa metti moo tax ma toog di muñ muñal samay doom mais mu nekk sonn naa amatuma dara lu ma jaay daanu naa complètement tàllal ñëpp loxo nag ku ma mën a dimbali ma delluwaat sama jaay jaay ma sant yàlla parce que sonn naa trop. d'accord yow mënoo sàcc mënoo fen mënoo def lu bon mënoo def dara jaay laa yaakaar waaw liggéey kër léegi mënuma ko jaboot laa mënuma ko d'accord d'accord merci beaucoup suñu borom. xaaral ma lire communiqué euh, na benn valise bu def nag ay yére ak pochette ku ko na nga woote ci 77 726 11 59 ci bisu yoonu Touba la. Euh, Mbacke moom nag euh, mënul wax te du du dégg la ma nga soloon mhm. benn. Mhm. yére boobu la juróom benni at la am dafa réer. Mhm. barki démb ca Touba. Euh, Arrêt Barré Cissé képp koo xam ne gis na ko nag na woote ci 76 681 51 75 Souleymane Ngom moom daa réer le benn pochette en cuir bu def nag euh, euh, pièce d'identité permis de conduire ak carte grise ak xaalis ci VDN bi képp koo xam ne gis na ko nag na woote ci 77 723 10 36 El Hadji Amady Ñing taximaan dafa for ci taxi am benn carton bu kaki waaw ay mbir naka nga ca ku koo dégg daal na nga woote ci 77 230 59 65 kii moom mi ngi tudd Mouhamed Ba moom nag euh, nee na dafa réerle ay caabi oto euh, appel euh, Astra ci Parcelles Assainies unité 15 képp koo xam ne nag avant màggal gi la woon nee na. koo gis daal na nga woote ci 77 791 75 47. Soumaire ku ñëw. Sala. oui allo. ah. ah. càmmañi Sala. càmmañal Sala la. Aliou Sané Aliou Sané Y'en a marre maa ngi lay siyaar di waaw kay euh, Khoudia. Khoudia Ndiaye moom nag sëru Ndiaye dafa réer le benn sac. Mm. Euh, ba muy jugee Touba defoon euh, basin brodé. ñawuñu ko nag ak benn bracelet. ak en argent la ah. waaw koo gis nag na nga koo rek ngir yàlla nga jaara yónnee woon numéro nag ah, en tout cas daal boo bëggee dégg-dégg daal. Kalla Aba. oui allo El Hadj. ah waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw. na ngeen def waay Cheikh Sarr maa ngi leen ziar Mansour. Zia Aba Aba Diatta ñu ngi lay lundi. Ah, ah. moom ñetti fan la am àjjuma dimanche VSD. xanaa daa am jëkkër. Pape Alé Pape Alé mooy ñëw ngoon mais non waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw ci loo ne. maa rek. yaa ngi. yaa ngi nii rek. ah ah. daw rek. ah waaw kay. am naa ni nga ni nga ni waaw waaw waaw waaw. Sénégal laa bokk moom moo njëkk a incité ko ci dugal. Ah, waaw waaw fan la dëkk. nee na sëñ Abdou Karim moo la noonu ne la Sénégal laa bokk. waaw ko ci dugal. waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw mu nga ci biir waaw. waaw wax nga dëgg. wax nga dëgg man la ca biir. Sénégal laa bokk nekk xaw ma nam ma xaw déet waaye man. bu ñu demee ba deuxième mandat bi la. lii ñu toll man moom laa gën a namm Sénégal. kan ci. sëñ Abdou Karim Karim ah, ah, Baye ah. Karim de ak a jar a maa ngi ci mu waaj dëgg de alaaji. alaaji bu ma fi bàyyi de. ah déet ci waaj déet yaa ma ne yaa ngi waaj wala ñoo ngi waaj. ah ñoo ngi ci mu waaj de. alaaji kañ nga naan jàmboo nii. <laughs> dama ko nam c'est que ko su waxee lay nekk ni dañuy labb ci moom rek. wallaay ndeysaan labb ci moom rek alaaji dem bañu fi Baye ah, Karim kenn du ah. doyal ci moom. ah alaaji. ah war nga ñoo taxawee noonu alaaji. Ah, kon da nga doon dem nii kon bu ma la yëgul woon. déewu laay. doon naa la moom kii moo tax ma tàggul la. Eh, moom sama xel maa ngi lépp ci moom. moom kay te moom suuf sax wane na ko ni ni Baye Karim di solo la solo de. waaw billahi wala nga ne namm nga ko lool. billahi ma ko namm yàlla xam na ko yàlla xam na ko. ci Baye Karim. ok nag moom alaaji moom. waaye yow oto oto bii romb mbaa jàmm la. seeram bi woyof. ah. <laughs> ah jàmm la def. ah c'est sûr. waaw mais El waaw. nawet bu ñëwee ba léegi. waaw. paas mbaa xam naa doo ko jaar péage bi nga jël mais taliba dagg am jafe-jafe kenn mënu ko nag. waa Géejawaay ngay dee ak BRT ba. Géejawaay moom cité Aliou Sow. dañ ko ne ràpp tëj. cité ba ci bopp. waaw waaw léegi kon fooy jaaree. cité ba. cité mm-hmm. ba day sëñ bi léegi moom boo génnee da ngay génn. da nga naan génn sa croisement bee coro ngay jéem a laale Malibu. léegi da ngay dem ba Piaay. <laughs> dogoñ. Ah? waaw waaw wala boo génnee nii ci booru pharmacie golf. Mhm. amatul weneen ug yoon lu wutali jumaa ja. ay la def kay. waaw waaw buntu ba nga xam ne mooy duggee ca booru Nations Unies. Mhm. dañ ko doon ràpp. Ah. da ngay wiiri. yaa ilaaha illallaah nekk nii kay. man kay man kay lii. man kay lii sëñ bi lii lii kenn xamul lan la. wallaahi. coono la ñuy dund ca bërëb ba ca boppam doy na waar. kenn xamul lan la. Demba Gadaga maa ngi lay siyaar depuis Lac Rose ak euh, Binta Yëmbal mère Binta Diallo waaw kay. kon de dinañ yéex a dégg les ah, passagers da wàq naan nem saat. préparez-vous. man de Mouhamed Sarr Moustapha Bey. non Lahat Ndoye. seen ñoom ñëpp ay sopp la ñu ngi ci Grèce ñi déglu vraiment sonal nañ nañ ñi déglu wallaay ah? teen ñu ngi bëgg baax a baax wallaay ah? Mouhamed Sarr Moustapha Bey Laxat Ndooy Laxat Ndooy seen kii nee na poste caaro yi benn turu bu mag mhm. mooy sonal askan wax tur benn benn xam naa boo demee benn pax wi nekk foofu la rek ah ak jàmm gën jàmm gën aussi dañ doon def benn canalisation pour ndox mi. Ah. dañ ko fa ba léegi. tey bi daa dagg tamit. waaw waaw baax na. réew mi ci kaw léegi ma ni. loolu léegi fax la de réewu kaña lay soppaleku léegi de. kaña kaña day baax abaa abaa mënuñu mënuñu laa ba indi la ay redressement booy. ñu ngi dégg ñu yónnee la huissier de justice di def inventaire la nga am booy. nga nekkaat foofu di wax loo xam ne bu la ci ñambaasalee diffamation booy te nga trafic te tëj sa micro booy. gën de kii de nee na. <laughs> waaw balaa ñëw jëlaale sama moto bi sax. ah <laughs> non alaaji. moto bi boole wuñ ko ci inventaire sama copain wax yàgg nga ci poche yi. non. dëgg de ñun daal nañ fexe ba li ñuy sol moom bu ñuy jël bagage yi nañ ñu ko fi bay bàyyi. ak ñun suñu jëm nii. li ñuy sol nii. suñu yére yi ñu sol nii ah doom doom neex ndayam. looy jot nga woon. su boobaa neex ndayam. ah damay wax rek yàlla tax di damay wax rek. waaw xam ne balaa ñu laa futti. ah kooku débat la. ci man <laughs> kooku. te man bu ma oh, yow moom ku lay futti ku ne. ci eh, man ngay jaar. déedéet alaaji. dimbali ma rek. simeer <laughs> mi nga xamante ku fi la ma. ni nga gis sama yaramu neen. la jàng fële. <laughs> di ngeen ko gis. ma la yaramu neen mais ku ko jege rek rek rek rek eh? sama ngay jaar. pour pour futti ko. nga la waay dañ njëkk. Ah, eh, yaramu neen ku alaaji loolu naa ko seetaan. ku mu ku mu futti futti ku ñëwee futteeku. daa am ñu ñemee futteeku ak ñu ko ñemewul ku ma ñemee ñemee futti futti ku ñemee futteeku. mbaa mbaa du futti ñun futti dun. <laughs> Abba Fole Abba Fole. voilà merci beaucoup l'actualité du trafic urbain se poursuit sur Zik FM. nous sommes passés sur l'autoroute bàyyi ko prétel bu HLM foofu la mën nga fa jaaree sot nga jël koo xam ne si bi wala boog progressé wutali la file de voiture progressé wutali Colobane inter bi xaw a jafe su ko defee aussi boobu voiture bi bàyyi ko foofu la mën nañ dëkk tranquille wutali fi xam ne du de l'échangeur man si ñu ko defoon son Colobane soo mën a jóge rek da ngay xalaat fii su ko defee la aussi progressé wutali rond-point du parti socialiste kooku acca simeer ñu dem acca ñëwal Vous êtes passionné des métiers de la communication numérique, du journalisme et de l'audiovisuel Africom AV offre aux bacheliers et aux étudiants un environnement de formation pratique. Africom AV, c'est aussi la formation continue destinée aux professionnels du secteur en activité. La pratique dans une véritable télévision et radio dédiée à la formation, avec des équipements de haute performance, un enseignement de qualité dispensé par des experts conduire durant votre formation. Africom AV vous plonge au cœur de votre futur métier. Démarrage des inscriptions prévu en mi-septembre. Contact 33 831 04 19 78 604 16 16 jolof Chicken quelqu'un d'entre vous a-t-il l'explication du succès de Jollof Chicken au Sénégal Jollof Chicken succès bu mu am ci Sénégal kan moo ko mën a expliqué ah loolu neex rek la ak saf Jollof Chicken waaw waaw ku nekk di laaj kañ la Jollof Chicken di ubbi ci sama gox le 7 octobre Jollof Chicken dina ubbi Kër Massar le 29 octobre Jollof Chicken Malicounda Mbour waa Mbour yéen a ko doon laaj waa Malicounda yéen a ko doon laaj le 29 octobre le seen Jollof Chicken Malicounda di tijji Kaolack 5 novembre ah mbokk yi Kaolack le 5 novembre lay doon le 12 novembre ñu daal di dem Bargny waa Bargny yéen a doon laaj seen Jolof Chicken Jolof Chicken bu Bargny pare na le 12 novembre lañ koy tijji le 26 novembre ñu daal di dem Tivaouane ah waa Tivaouane Jolof Chicken le 26 novembre lay doon le 10 décembre ñu daal di dem Louga ah mbokk yi waa Louga loo ci entrée Louga Louga loo lu muy yaatu yaatu yëpp Jolof Chicken rek laa fa xam kon nag mbokk yi Jolof Chicken bu Louga le 10 décembre lañ koy tijji ah Chicken na réew mi kan moo ma mën a expliquer le succès de Jollof Chicken au Sénégal. Jollof Chicken ak croustillant teneer commandel wax joo xam ni kenn xamul fu mu jógee ak lan moo ko tax a jóg ndax réew mi jàpp naa ni démocratie la buy dox 2016 man maa proposé askanu Sénégal révision constitutionnelle boo xam ne dama ni mbirum mandat yi dafa war a jeex dàkk ñépp jàpp ne réew mi kenn mënatu fi toog lu ëpp ñaari mandat dañ ko bind mu leer nañ nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs xanaa kay ku jàng tubaab boo ko firilee loolu war na xam ne indépendamment euh, référendum loi 2016 wala loi 91 dañu ne mandat bi juróomi at la benn yoon lañ ko mën a renouveler muy donc boo ko renouveler muy ñaari mandat ñu yokkaat ci leneen lu koy tëj ne de tout façon kenn mënul def lu ëpp ñaari mandat yu tegale donc loolu la constitution bi wax donc loolu lu leer na man maa ngi sama benn mandat boo xam ne bu ci yàlla àndee deux mille dix-neuf lay jeex ci coobare suñu borom ak bëgg-bëgg Sénégalais yi bu fekkee ne jàpp nañ ne liggéey bi ñu sa sumb ñu ngi koy teg ci yoon am nañu seen kóolute dina renouveler mandat boobu deux mille dix-neuf su boobaa man pare naa ci. mais vraiment damay ñaan daal ñu bañ a di engagé réew mi ci loo xam ne énergie bu bu bu ñuy perte la amul la ñu njëriñ en mii de jàpp naa ne mbiru ñetteelu mandat dinañ ma séentu fépp ba mu des si mbir moomu de donc loolu dama bëgg ñu wax mu leer te mu mu yem. Fondé en Centre d'appui à l'initiative féminine, est une de formation qui offre la couture, confection, l'hôtellerie et la par l'État et vous prépare aux examens de DQP, BT, du CAP et du e it de la boulangerie jaune. Woole ñu gaaw ci 33 825 13 50 ou le 77 181 14 nga xam ne jàng français mooy sa yitte yegg si nga institut français dina tàmbali njàng mi fii ci dakaar ak këram nga ca Ndar ñeenti fan ci weeru octobre wii di ñëw ñëw leen gaaw bindu si balaa xat ngir am xibaar yu gën a yaatu jokkool ak sunuy ndaw ci 33 823 03 20 33 821 08 22 boo nekkee Ndar wooteel ci 33 938 26 26 institut français mooy daj dëpp gi ci njàngum farañse yi sàmmkat yi ak nappkat yi bu leen yàqati seen xaalis di jënd lu jóge bitim réew jënd leen si réew mi jënd leen Sosenap waaw waaw Sosenap defarañ na leen ay buum yu dëgër yu ni woowee Hercule borom doole cey Sosenap dafa tëra mëninam Hercule dafay dëgër te di yàgg ah Hercule am na ay ficelle yu ndaw ak yu mag corde yi nag am na diamètre yëpp yëpp ñu liggéeyee ko ci norme internationale yi ñëpp d'accord qualité am kuy wut lu baax demal Sosenap Sosenap 1982 ba tey cey ku jëflanteeg Sosenap dootoo ko bàyyi. En vue d'une cuisine riche en épices et en couleurs naturelles, vos Maggi Maman tomates et épices sont faits d'ingrédients familiers que vous adorez. Gingembre, oignon, tomate, ail, piment, tout pour donner à vos repas les belles couleurs et les Vos mamans tomates et épices sont disponibles chez votre revendeur habituel. Pas besoin de rajouter du sel quand on cuisine avec les bouillons magiques. Cuisiner avec magie, ça change la vie. tey promo Raktak 600 pour cent par Sedo et 700 pour par Orange Money ak promo Raktak de Kirène avec Orange profite de de bonus au recharge crédit par Sedo wala pour cent rechargé par Orange Money à partir de francs CFA Sedo la Orange Money mën aussi par Sedo et par Orange Money sur rechargé moins de francs promo valable sur recharge à partir de francs. ñoo fa. Ah, ndox dafa jafe mani la waroo di ko fowe. L'eau est une ressource précieuse pour l'économiser Fermons nos robinets lorsque nous faisons nos ablutions. Yaxanal ndox mi. Ceci est un message de Sen. lu ko vingt 27 septembre ba 30 octobre ñëw leen découvrir ci seen magasin Auchan bépp produit bu ngeen soxla pour la rentrée des classes lépp lu jëm ci papeterie ak seen i fourniture yu doom lépp luy maroquinerie ak yeneen i articles yoo xam ne écoliers yi da koy soxla élèves yi dañ koy soxla lépp lu jëm ci bureau ci ay njëkk yu yomb promo bi nag day daw fii ba le 30 octobre 2021 Auchan moo leen di ñaanal rentrée des classes su jàmm ak salaam mooy paludisme ma ka ndaw te mën na gaañ ngir fegu si sibiru njaboot gi yëpp war a nelaw si sànk bu ñu naan daal guddi gi yëpp at mi yëpp muy noor di nawet bu sa yaram tàmbalee tàng demal gaaw ci kër docteur bi li gën a jege ngir ñu taxawal la ci ni mu waree defal la TDR test de diagnostic rapide si li ngeen dul fay dara si bu fajukaay yi fi nguur gi sànc wala ci seen case de santé ak des doom yi si fukki minute ak juróom nga xam ndax da am sibiru wala déet bu dee da nga am sibiru ñu may la garab yi koy faj ñu tuddee leen ay ACT sibiru feebar la buy faat waaye mucc def li war tàggu ak sibiru tëdd ci sànke bu ñu nàndal ngir aaru aar sa njaboot jële fi sibiru sibiru bi leen mooy de Zik FM yow de dem nga bay ma man de wey naa laay yow de wetal nga ah, man de fi mu nekk nii de kaawu ndaw si daal dafa am ñeneen ñoo xam ne alaaji dañoo sulu leen. alaaji dafa am sama benn rakk boo xam ne nag. waaw ab caméraman la. waaw Cheikh dafa am nag benn caméraman bu wàññeeku. Oh. léegi nag euh, ñi ko doon tàggee jël photo moom utiliser ko. Oh. Eh. waaw. waaye déet waay. wallaay fi nekk nag moom mbokk yi ñu ñu bari jaaxle nañu ndax Cheikh nag wax dëgg yàlla yaa ngi dund nag Diop jubba. <laughs> <laughs> mu ngi dund nag. waaw waaw Cheikh Diop yaa ngi dund. waaw waaw <laughs> dañoo jaawale ci photo yi. xamal nit ñi ne leen Cheikh Diop eh, caméraman bi faatu bokkul ak suñu rakk ji Cheikh Diop Cheikh Cheikh mi ngi caméra tey jii xëy na. ki ki faat surtout Cheikh Diop waaye photom photo Cheikh la ñu utilisé photo Cheikh Diop lañ jël taf ko ca benn caméraman boo xam ne dafa génn àdduna waaw yàlla na yéex ñun ñëpp danañu ko def nag yàlla na yéex nee na grand démb ñu ngi may tàggee te déewu ma déedéet déewu déewu ma Cheikh déedéet ne ki dese di Cheikh Fall Touba Touba la nekk ma ne caméraman bi génn àdduna Cheikh Fall tudd euh, ngi dëkk Touba suñu rakk ji Cheikh Diop euh. Euh, caméraman la naam waaye deewul ñu ñu ñu xamee ko noonu <laughs> li ma Lamine Fall naan ngeen xamee ko noonu. <laughs> dégg nga loolu alaay. waaw gënte ne xale bu jigéen bi ñu bi ñu tàggee woon te mu nekk campus nga xam ne ku ñëw ko université xam nga ko te mu xaw a manqué ne tuuti. keroog bi ñu ko tàggee ba cëg googoo neex. vidéo bi. Euh, kii. campus ñëpp ko xam université ñëpp ko xam. ci car rapide rek. waaw <laughs> mu ñëw vidéo bi bay neex. salaamaaleykum damaa dégg noonu damaa dee. <laughs> Hélène la Hélène la ok. mu ne maa ngi nii làmb leen ma. <laughs> deewu ma maa ngi nii la. ki wax dee dee dee laa deewu ma. làmb làmb leen waaw léegi fii lay nekk. Eh, loolu. boo jëlee boo jëlee mbartal bi. mbartal bi waaw mbartal bi waaw. di point bi. non non non. fii autoroute. booy autoroute bi waaw. pas droit waaw. ah nii ci pont bi nii. ah bàyyi na fii nii kon bàyyi na fii fii boo paasee station trois heures bi. voilà nekk waaw salaamaaleykum nan maa wax ne damaa dee. man maa ngi ni deew ma lamb leen ma. kii kenn deewul deewul deewul. deewul réew ni diw dee na dañoo statut la. deewul de. sa mbokk yi la gën a jege ci statut la ko yëgee. seer deewul yow nekk fi rek. deewul de deewul de deewul de. teewul teewul dara léegi seex seex tamit ñu xamal mbooloo mi yëpp ne leen seex seex Diop uh-huh. deewul moom caméraman la deewul mu ngi nii waaw mi ngi toog waaw léegi nag na ko mbokk yëpp xamee noonu te rajo bi moom tës bi taarkàlla loo fi wax uh-huh. fexeel daal ba simèire bu mu tëj sa micro rek waaye bu ko tëjul moom lu ñu fi wax taarkàlla adduna bi yëpp dañ ko yëg kon nag seex Diop yàlla yàlla guddal fanam seex Fall bi fi jógee yàlla na ko yàlla xare ak gën a kaw waaw kay waaye léegi uh-huh. léegi ndaw si ala dafa am xam ne dafa am lu ñu souligné muy point bi jëkkër ji demee kaso. Mm. am na ñoo xam ne fa lañ bëgg a teg débat bi. ne maanaam warul yóbbu jëkkëram tamit kaso. lan moo xew. du foofu dóor ya la. du foofu de. Ah? ko yóbbu foofu. jum nañu. dóor ya la jëkkër ji lu muy dóore. booy àttee noonu yow di jëlal sa yow jëlal sa place yow sa jabar. Mm-hmm. yow jëlal sa jabar nga teg ko ci place su ndaw si. est-ce que yow góor gu responsable. Mhm. di nga nangu sa jabar di dund souffrance bi. tout court. bul sujet ndaw si te. dóore daal sa jabar góor daal gu ne lëng am sa ah. doole. waaw wan ko sa liggéey. waaw mbaa nga wan ko say nawle. mais ah. jigéen joo xam ne jigéen moom ñëpp xam nañ lamiñam mooy doom ah. boo ko dóoree moo du fa yoo location. et bi ci tege mooy alaaji. Sénégal gii. doon fi jigéen daa métti. te sëyu Sénégal a métti. ñëpp ngay sëyal. ba pare kenn terewul takk ñaareel ak ñetteel ak ñeenteel mais balaa ngay takk da ngay bàyyi ba mu kër yow da ngay di takk ñaareel ak ñetteel jëm fan. am xam te dëgg nag. am na ñoo xam ne sax euh, Cheikh. Ah. yàlla xëy na dënk na leen luñ mën a luwee ñaari kër. dégg nga loolu. bu la yàlla maye loo loo ah. mën a luwee ñaari kër. nga jënd ko benn nga dem jëndee ko benn kër. Ah, tabax kër dugal ci sa aaw ba pare doo ko takk. waaye waaye. waaye si sëyu Sénégal. njaboot rek dañuy focc mm-hmm. waaw. sëyu Sénégal ci boppam moo métti. dafa métti sëyu Sénégal moo métti. ni ñëpp jigéen ñi dafa métti mm-hmm. trop. voilà loolu la quoi. bëgg seeg jëkkër seeg jabar seeg. njëkkee seeg njëkkee seeg. rëgg jab rëgg jëkkër. waaw te leen a diis. ba pare góor ñi dafa bëri ñoo xam ne bu ñu takkee aawa bu ñu takkee bu ñu takkee ñaareel rek. Hmm. jàng bi day fës trop. mais ah, loolu du yoon loolu baaxul nag gis nga gis nga loolu baaxul. loolu baaxul wala wala fase jabar fase waale say doom. Hmm. ak a fee bëri. non non non non alaaji yooyu baaxul. baaxul fasa jabar fase wala say doom. loolu moom baaxul. mooy fasal sa jabar mais say doom li war ci ñoom def ko. fi tolloog sa doole. no c'est que man waa ji le fait di dem ba tey moo tax ma ne. mais parce que fii jubóoli ko jubóoli ko jabar ji ko. moo tax mu war koo dundal. dëgg yàlla dëgg yàlla. voilà dëgg yàlla. ah koo fasewul nag moom boo bëggee dégg dëgg. li tax mu ko kaso nag. Ah. do do ab dóor dóor góor du dóor jigéen waaye. moom mi moom moo ko yóbbu kaso sax. waaw loolu lu waaw. ay moo ko yóbbu kaso. ah loolu tam jar naa laaj tamit. mën na ko def loo xam day génn ko ni demal gendarmerie. yal na yàlla dolli jàmm daal. jaaxle quoi am ku ñu ko demal gendarmerie. Ah, am ku ko demal gendarmerie mu daal yi ñoo warul. dóor daal ah. warul. góor gu ne di dóorub jigéen. Ah. warul. waaye léegi-léeg ñoom ñu tontu tontu yoo xam. loolu mooy seen doole. jigéen loolooy dooleem. mën ngaa mer. am nga ay. balaa nga xam ne góor daa bëri xam nga jigéen balaa nga xam ne loolooy dooleem mu ratatatitat ba nga song boo ko mbejee mbejaat ko coow la jeex na gàddam wàcc na lu muy mujj ay jooy. ko boo ko dee dóor yaa ko tooñ. ah yal na yàlla dolli jàmm ci réew mi. ay dóor du yoon de. message nañ ma de. ne ma El Hadj Malick Gakou ci yoon bi di dëkk di ñu masta aussi. fii ah. waaw. waaw na egg si. mu juumalee départ na de. ñu bil ko si kii de waaw kay voilà. loolu da laa gëm. voilà bu ñëwee rek. daal nit daal bu la nekkalee da nga koy nekkal. waaw dëgg la vraiment. dëgg la DBD dafa nekkal askan wi moom ñëpp la fi nekkal dëgg la. voilà bu ñu toogoon fii fayeku ñetti weer ñeenti weer. doo dégg ñu jooy. te ñoom ñooy te ñoom ñooy ay kilifa ci askan wi. dëgg yàlla voilà voilà. Alaaji Malick Gakou nag ci dëgg-dëgg daal vraiment yàlla na ko yàlla fayal waa réew mi. amiin yaa rabbal aalamiin barki démboo Njaay gis nañ ko ci Guy Marius Sagna. waaw waaw vraiment. waaw képp koo xam ne am na fi daal ay jafe-jafe gi nag daal dina lay daal di lay seeti. alaaj gàkku li ma neexee man day léeg-léeg ma ñun hmm. man day li may jotee moom yenn saa yi sax yooyu def ci bokk. ndax xam nga ñun dañuy demee fukk fukk. Hmm. dañuy demee lii waa ji def nii waru ko def man de bu ma ko defee ma def. surtout hmm. état def loolu. su ko defee mu ne la sa waay. góorgóorlu nga jéem a nekk homme d'état. dëgg naa dëgg. yooyu nag léegi mu lay wax. nga mel ni Ahmed Aïdara di xiin xiini. moo tax man gis ne sama réeroog moom alaaji. ci biir géej waay daa yomb nitu état du mer ndax moom nitu àjjana la. ndax xolam xolam bu laabi. bu ko defee nag man moom yéen ñi moom sa waay man moom man moom yéen ñi daf may jéem a téye di ma jéem a daal. looloo nitu état ma ne ko waay yow kii day dof dof lu doful. ndeysaan dëggal lool alaaji nitu état def noonu. <laughs> nitu état da ngay boole ki la bañ ak ki la bëgg. ba pare jël ki la bañ sax fesal ko. wallaahi fesal ko fesal say teraanga jëm ci moom. ah man na ba wàññi ko moom day dëgg dëgg. nitu état noonu lay def. ah mel na noonu nag naa daal il peut être un un un incompris. Malick Gakou lu ñaaw. un incompris du def lu ñaaw. Ah. foo ko fekk kanam gaa nga lewet. Hmm. en tout cas day man nee naa ko nee tu es beaucoup plus technocrate que politique yow doo politicien. Mhm. yow doo politicien de boo yorulee ay politiciens sa wet day. ni seen. sunu genre gi suñ deret gi gaaw a tàng mënuñu politique. yàlla na yàlla dolli jàmm ci réew mi amiin yàlla balaa li moom yàlla na nu yàlla suturaal xool bi moo ñu xoj mais bëggoon naa teg Kouthia barki rasul eh, yàlla na nu yàlla suturaal Kouthia <laughs> yàlla na nu yàlla jàppale yàlla na nu yàlla aar yàlla yàlla affaire tere fii ba lëndi naa fi teg Kouthia eh. wala ma indi ko fii sax mu ñëw toog fa di yëgal gaa di yëgal gaa yi sunu ngel mi tey waaw waaw waaw voilà voilà sunu ngel mi tey ci sunu investiture bi vay la ngel vay la ak xew mi suba waaw a suba 15 incha allah investiture ala jax ma day dara buntu école 16. Ngaka Blende nga fa. waaw Tite nga fa. Mhm. Sidi Diop nga fa. ak ñoom Thiat Seck. Thiat Seck ak ñeneen ak ñeneen. ak ak des invités surprise. ak ñeneen ak ñeneen. ak ñeneen ak ñeneen. saa <laughs> ah. ah. ah. <laughs> ragale leen nag. ëmbal naa fës suñu waaye <laughs> ni ko ah mu ne ak yeneen ak yeneen. alaaji boo gisee. moom tojaange ak téere bi mu takk fii. bi mu ne nii loxo ak yeneen ak yeneen. <laughs> saa doon nit. yal na yàlla dolli jàmm ci réew yal na nu yàlla sutura. yàlla jàppale Pape Alé Niang mi ngi nuyu. waaye Pape Alé Niang ñu ngi koy nuyu. ci invité la bokk. nee na ngi ñëw fii te mi ngi ñëw fële. ah bon très bien Pape Alé Niang ah, waaw ah, waaw waaw. Baye boo mu fekkoon damaa ndekki ji ah dégg nga. ñëpp ñëw wax ñëpp war a ñëw Massaw Demba Dia. Ah, ñëpp waaw waaw El Hadj Simer Diop kon mbokk yi moo ci xarale gi nag monsieur le maire la grand maire par force mi ngi noonu nag par force Mame bi. waaw kay waaye Cheikhou Saareen bi sama Cheikh baa ngi nii toog. min Makka min Madinatul Munawwara nag mi ngi nii toog di Alaaji Mansour Diop. ki a découvrir ki bëgg a découvrir ngel. tey guddi. Ah. yow kay découvrir nga ko parce ñam nga fi. déedéet alhamdulilah laay fekk di rek ko tedd ki borom maamu bari yëru or ba ca Medine Bande Hachim Bande Khouré Ahmed Aïdara Karara monsieur le maire de la ville de Guédiawaye. di leen jokkoon dig daje suba incha allah.